li kàddu gàngoog jërëjëf ajaratu betti bo ñu am mbégte di am kontante di ñëw ak yéen ci rubrique bu mag bi nga xamante ni bi moom la ñuy wax pajum cosaan ñu ciy ànd ak Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis di ci waxtaane lépp loo xamante ni dafa jëm rek ci wàllu pajum cosaan waaye it di ci waxtaane lu jëm ci wàllu actualité ndaxte Sénégal dañ koy bàyyi xel di ko déglu di ko xaar ngir mu gindi leen ci li xew ci pénc mi ci juróom-ñaari fan yi romb loolu nag moom lañuy tegaat ci penc mi càmbar ko mu gindi ñu bari ci li nga xam ne mooy lënt lënt ci seenam xel Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu ngi lay nuyuwaat aasubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fala taxlamu nafsun ma uxfiya lahum min xurati ayunin jasaan bima kaanu yamaluun maa ngi nuyu Alaaji Sanjoogu di nuyu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di jiital ci nuyo bi xalifa général yi nekk ci Sénégal yëpp kilifa diine yëpp waaye rawatina Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général de Murit di ko ñaanal yàlla yokk ko wér ak euh, kàttan ak man-man ba li ñuy liggéeyal lislaam di ko liggéeyal Cheikhul Xadim mu def ko nam ko bëgge di nuyu sunu wéyjuru bu baax wa ca kër ga muy soxna Bali Muntaxa di nuyu Cheikh Abdou Samad Sonibou ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir di nuyu sëriñ Abdul Xaadir Njaay xalifa sëriñ Daaru Asan Njaay ak euh, sëriñ Ibrahima Jëmb Njaay di nuyu sëriñ Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar ak euh, soxna May Mbàkke bintu Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu bu baax tamit sëriñ Ateex Mbàkke mu Cheikh Sidil Mokhtar ak sëriñ Jiili ak sëriñ Muuda Aysa Mbàkke mu Cheikh Sidil Mokhtar ak sëriñ Abdul Latif ak sëriñ Abdou Samad mbooleem njabootu Cheikh Sidi Maxtaar gépp ak sëriñ Abdourahman Mbacke mu Cheikh Abdoul Aziz Baara euh, maa ngi koy ziar bu baax tey nag dinaa nuyu euh, sama benn maire bu ñu wax maam Njare euh, yaayu met ndaak waaw yaayu met ndaak met ndaak waaw ndaak benn moo nekk greffier hmm. bu deuxième cabinet maa ngi koy nuyu bu baax daf ma wax nag ne naa nuyu Eh, nu mu tuddati Salma Ibrahima Fall. Salma Ibrahima Fall mu ni men waaw maa ngi nuyu Salma bu baax tamit. Mm-hmm. kon di nuyu Moulay Hassis Guèye. Mm-hmm. di nuyu sëriñ Khadim Lo Gaydel borom ndaam ak sama nijaay Cheikh ak Moodu Mbacke Lo. Mm-hmm. sama nijaay Abdoulahi Boussa ak doomam sëriñ Sidi Boussa. ak eh, mboolem daal njabootu sëñ Tuubaa gépp maa ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf Cheikh Baara Ndiaye borom def gis macha allah Cheikh Baara. xaritu maire yi ak paa yi ñu ngi lay nuyu di nuyu maire yooyu nga xamante ni bii ñu ngi lay koj di la wax ne nuyu kii ñu ngi leen di nuyu waale ñu nit di am ci ñoom mbégte kontaante mais Cheikh Bara président sàll Sall tournée économique nit ñi yëkkati nañ ay kàddu wax nii maire daf cee maire maanaam daal tournée bi daal tournée maire la gën a jege maanaam daal nit ñi daal caricaturé nañ wax nañ lu ne ci li nga xam ni mooy li président Macky Sall di waxee. noo jàngatee yow tournée économique bi nga xam ni ci la président nekk ak tamit liggéey nit ñi bàyyi fa liggéey di indi ay mer yooyu di ko wax noo jàngatee yow discours euh, président ci li nga xam ne mooy gox yu wuute yi mu dem. waaw loolu day. Hmm. Euh, defe naa def na actualité bu metti waaw. Euh, xam naa nag dinaa ko jàngat. Hmm. Hmm, ci façon bi ma ko gisee man. nga koo xam ne dangay ngay seetlu. xëy na nag du ma wax président la mer du wax président merut mhm. dinaa ñëw ci maanaam jéem a jàngat dëgg-dëgg ndaje moomu ak euh, wax ji yooyu yëpp. naa nag xam naa ne xëy na président merut merul waaw waaye war naa mer. war naa mer. waaw maanaam merut ndax merewut gaayam yi. Uh-huh. waaye damay wax ne war na leen a mere. war na leen a mere. waaw. abo ah ndax fi mu ne Sanjogo bu ma ne la woon maanaam Amadou Ba. Mhm. mi nga xam ne mooy candidat wu Macky Sall. waaw fiche parrainage am bi numéro ban la xam nga ko. fiche parrainage su Amadou Ba non non. xaw baari ci Sénégal xamuñu ko kenn xamu ko sax. te ñoom nee nañ collecté nañ maanaam mën nañoo nekk ci réew mi discret. <laughs> waaw ba man fee collecté trois millions pare. <laughs> te benn photo kuy parrainé fuyutewul ba noppi information bu leen Macky Sall jox ñu fuyute ko. war na leen a mere moom. waaw te feuille feuille Amadou Ba wi ñu leen wax na ko ñëpp gis donc mënuñoo fexe ba fi witteel ko mu génn ba léegi discret na. kon <laughs> xam amaloo bi ñu ko dencoon génn gudd léegi <laughs> loolu moom war na leen cee mere dal na gars yi moom dañoo desee aay nag vraiment. <laughs> léegi nag. Uh-huh. président man du ma ko jël ci aspect mer. doo ko jël ci aspect mer dañoo gis rek ku toog. Mm-hmm. xëy na ni mu daan waxee ak ni ñu ko xamee. Mm-hmm. di waxee wut noonu di waxee neneen nu gën a dëgër. Mm-hmm. waaye dañuy jël président. ak ay ndaje. Hmm. maanaam ndaje mi mu def keroog toog ni tiim micro comme man. di wax ay nit mbooloo toog dañuy jël bi ko mujj. Hmm. mooy defe naa bi ñu koy jébbal euh, rapport Covid bi. Hmm. rapport astafurla euh, dialogue ba. dialogue bi waaw. waaw waaw dialogue ba. boobu président dafa toog sol costume toog maanaam nekk comédien bu. xoromu sax keroog. ndeysaan ci kaso ba la ma fekk maa ngi ko doon seetaan foofu laa ko seetaanee. mais man rek keroog damaa ree ree ree ba sonn. Hmm. parce que président dafa reeloo nit ñi keroog. waaw ah. booy xool fa la doon tooñe naan waaw li ma bëgg a wax nag léegi yéeg li lekk leen seen yàpp ba pare rek bu ngeen lekkee yàpp yi ba pare. Hmm. après ma wax ak yéen. waaw fi lay waxee naan waaw xalifa sàll moom fi mu ne nii sama sees bi dong lay lay rogajee moom lay xool nit ñi daanu ci suuf. waaw fi mu naan sama gars yi am na ñu ci bëgg di def nii di tooñ amadu Ba maanaam. nga gis ne hmm. dafa reeloo nit ñi keroog. Euh, kon donc doo maanaam noonu la mel maanaam mën naa toog def ndaje. maanaam ñëpp di ree di ree di ree kon keroog bu tawagee di mhm. wax kenn réewut. waaw cela veut que ñaar moo mën a nekk mooy moom moo bëgg ndaje mi mel noonu. Mhm. wala boog dafa mer. waaw moom moo bëgg ndaje mi mel noonu wala dafa mer. boo xoolee tamit ndaje ma ko maanaam bi nga xamee ne bi mu jógee ci mbo boobu. Mhm. war a def des discours à la nation. waaw pour wax sénégalais yi ni leen duma duma bokk. foofu tamit dañoo gisaat beneen Macky Sall. ndax damay wax ne Macky Sall moom nekk na ëpp euh, ministre. Mhm. DG e ba ministre ba président assemblée nationale. waaw nekk opposant mhm. ba nekk président de la république. waaw maanaam c'est la première fois ma gis ko muy def discours. Mhm. di fomp. di fomp yorum yorum musuwaar. waaw musuwaaru Macky Sall moom keroog laa ko mos a gis mooy jour bi muy wax bokkatuma. xaw ma nag wax ji moo am émission ba tax muy ñaq mm-hmm. wala li muy wax moo ko neexul wala boog daal xaw ma mais bis boobu moom da ngay gisaat beneen xaru kanam goo xam ne mm-hmm. euh, du mag Sall bi nga xamoon noonu la indeewaat keroog Macky Sall boo xam ne miinuñ ko mm-hmm. muy xaw a mel ne kuy kii boobu nag man damaa gis ne amaana merut amaana waaye dafa gis ne gaayam yi dañoo beesale bara lañ koy wax xaw ma dañoo doxalu waaw mu nekk en tant que ab coach boo xam ne daf leen bëgg ñaax gëdd leen doxloo leen ñu dox ci kaw gaa yi. Mhm. pour mën a am ndam. Mhm. moo tax mu ñëw ne leen yéen defoo leen dara nit da ngay am fulla bu ngeen amee fulla nang xëy na moom ay gaayam la doon waxal. bale nga xam ne da doon reetaan loo xëy na ay nawleem la toogaloon. Mhm. waxtaan lañ seq waxtaan naa ak ñoom. mais ñii nag xëy na da leen dafa gis ne doxaluñ. mu leen ñu doxal loo. kooku moom man mënu ma cee taxaw. waaw waaw. wolof nee na ku njëluy jooy yaa xam la ngay jooy. moom na mu defee noonu moom moo xam lu tax mu def. moo xam amaana stratégie la. bu mu bëgg a def gaayam yi pour ñu jóg dox. waaw voilà mais ci biir nag ni mu tëggee waxtaan wi. Hmm. dama ci gis loo xam ne moom dafa wane ne moom am na lu ko jaaxal. muy lan mooy bu merul it jaaxle na. mooy def ne waaw man ay tëli yu am kàmb laa fi fekkoon. Hmm. defar naa ko. Hmm. indi naa fi train. làmp yi di xuy kamaj maa ko defar. ak BRT yi. ak yu bari. mais waxuñu ci. ay nit yoo xam ne xamuñu dara maîtriser wuñ dara di wër di wax di coow ba nar a wax nit ñi ba wër leen. Mhm. nga xam ne moom jaaxal na ko. waaw bilan bi mu def ak li lim liggéey ba noppi kenn waxu ci. waaw loolu da ko jaaxal. léegi nag noonu mu ko jaaxalee man foofu laa bëgg téye rek. maanaam ñu analyser ko. aywa mooy est-ce que président Macky Sall am na bilan. Mhm. wala amul bilan. Hmm. léegi bi mu amee bilan est ce que wax nañ ci bilan bi est ce que waxuñu ci. Hmm. waxuñu ci lu tax waxuñu ci. donc dañuy njëkk a wax bu dee bilan boo xam ne maanaam ku mel ne tey Abdourahmane Diouf wala Balla Moussa Fofana nga xam ne ay technicien lañ. Hmm. xam nga bilan bi dafay am. fond booy jaar ba indi lu fooy jaar ba indi fond bi. am ñuy gagné maanaam maanaam appel d'offre ñu gagné marché bi. am nag. bilan bi ci boppam mooy bitéel bi tege na. waaw comprendre nga. Mm. bitéel bi ban usine na ko defar. Mm. lan mooy fond bi ko defar kooku techniciens yi ñoo ko moom. mais bu dee biti moom gis na bitéel bi def na ndox. kon donc bu dee sénégalais laam daar bi dox di doom moom comme man. waaw dañ naan président am na bilan. Mm-hmm. am na stade. Mm-hmm. am na TER. am nañ am na arène nationale. Mm-hmm. am na yooyu maanaam ci bilan bu ñuy gis. kenn mënut a ne Macky Sall moo fi nekk loolu nekk fi kon kenn mënul ne du bilan. moo ko moo ko liggéey vraiment. Mm-hmm. ñu jóge ci bu dee ci wàllu xalaat man mm-hmm. ngaa wax ne man de am naa yoo xam ne mën naa ko apprécier ci moom mm-hmm. benn mooy tey lu mel ne PUDC waaw mooy plan développement euh, bi mu def ci maanaam dëkk àll yi nga xam ne daf daf ko def pour mu rapide dëkk yi am courant am ndox maanaam mu gaaw loolu vraiment dina baax na baaxut sàcc nañ ci sàcc ñu ci du ma dugg ci loolu mhm. mais xalaat boobu noonu maanaam nga xam ne dëkk nit ñi nekk ci Sénégal ñëpp dañuy am ndox am courant maanaam loolu man rafetlu naa ko mhm. tap maanaam boo ne PUDC rek saxe mhm. dina dem ci Sall boo jëlee lu mel ne plan Sénégal émergent moom itam du ma dugg ci jëmmi plan bi waaye man rafetlu naa président bu toog daal ne man bu ma defee deux mandats lii mooy programme bi mais dina xalaat ba yeneen cinq mandats yi ci kanam sax. Mhm. maanaam lan moo war a nekk économie Sénégal lan moo war a nekk développement bi lan moo foofu fan la réew mi war a toll nga xam ne da ngay xalaat li ngay war a doxal. Mhm. ba romb ko kooku vision bu sori la. xalaat jëmmi xalaat googu noonu maanaam jëmmi am xalaatu. Mhm. bañ a yem ci sa mandat mais nga xalaat loolu loin. man damaa gëm ne àdduna foofu la toll noonu la ñu war a xalaate maanaam jëmmi xalaat boobu. loolu mën na maa wax ne Abdou Diouf gisuma mu def ko defu ko. Euh, Senghor defu ko te Macky Sall def na ko. Mm-hmm. dugguma ci nag ca fond ba. Mm-hmm. mais jëmmi xalaat gi laa wax. jëmmi xalaat kon xam nga yooyu. moom moo ko moom. waaw nga ñëw jël lu mel ne Prodac. tey bu dee ci théorie Prodac. man ngaa wax ne théorie bu parfe la. bu dee ci lu praticable. waaw man ngaa wax ne lu praticable la ndax mën nañ koo def am nañ ndox am nañ courant. Mm-hmm. am nañ suuf am nañ jeunesse bu bu bëgg a bay. dégg nga xalaat boobu tamit. maanaam xalaat bu parfe la waaye nag foofu moom manqué volonté la. lu lu parfait lu baax maanaam nga xam ne boo ko defoon boo ko réussiré rek man ngaa bokk ci biir euh, histoire mën na la cee desal maanaam Prodac bu réussiroon tot na total rek mën naa nekk luy bàyyi Macky Sall ci histoire u Sénégal histoire parce que mm. dañ loolu loolu mën naa indi maanaam mën na fee jële nit ñi di jël gaal di dem mm. mën naa dakkal Nicaragua yoonu Nicaragua mais dangay ngay xool loolu boo ko jëlee ba pare nga dem dénk ko Mame Mbaye Niang mooy manqué volonté nga waxati nga jël ko jël def def def def DC ba Pape Malick Ndour. ci mhm. tel bi nekk Néné Fatoumata Tall. waaw xam nga loolu maanaam président même xalaat bi lu mu kawe kawe. foofu moom manque de volonté la. mooy ñoo xam ne man ñett ñooñu buñ bokkoon ci daayira bu sérieux duñ fa am post <laughs> loolu mooy li wér moom Mame Mbaye Niang ak Pape Malick taal Néné Fatoumata Tall bu ñu bokkoon Mourtassidine wala Mourtassidaat waaw wala daayira Hizbut Tarqiyyah maa amul benn poste buñ fa mën a yor hmm. nga jël leen ci dugal leen ci gouvernement waxatuñ nga jël lu toll ne loo xam ne nii maanaam mën na laa sax yow defal desal ci histoire maam nga dénk leen ko foofu moom manqué volonté la mais dama bëgg a wax rek mooy boo jëloon yii ma wax nii rek maanaam kenn du werante ne waaw maanaam PUDC baax na kenn du werante ne Prodac théorie bi lu baax la kenn du werante ne plan Sénégal émergent ay yooyu ay yëfama mais lan moo tax mhm. maanaam kenn toogul ci Sénégal. Mhm. maam di ci waxtaan. di ci wax. Mhm. waaw lu tax am na ñoo xam ne sax bu ñu séenee ma ciy wax ne dinaan i eh, waaw sëñ Bara ngay wax ca pala kii Macky Sall parce que miinuñ sax. ñu koy waxtaanee te ñun actualité rek la ñuy waxtaanee. Mhm. moo tax. mooy président ci boppam du problème bi du booyam yi. Ah. du gaayam yi. mais moom la. moom waaw nu mu nekkee moom. parce que plan maanaam maanaam bilan boobu. moom jëlu ko def ko muy première ci biir mandat waaw dafa am lu gën a ci bilan. lu bokkut ak liggéey. muy lan. mooy tey ta nag sénégalais. waaw président de la république. mooy ki ëpp lu ñu tudd ci Sénégal. waaw loola ñor rek day ñor askan wi loolu yàllaa ko def. Mhm. day mel ne nit ñi ay train lañ yow yaay wa bopp bopp. ay ay wago lañ yow yaay bopp train bi noo jëm rek. Mhm. wago yi foofu lañ jëm. Mhm. tey jii Sénégal amul benn maire. waaw wala benn paa laaj luy retour de parquet te xamu ko. retour de parquet. ci bilan bi lay bokk. amul koy laaj. luy mandat de dépôt waxu la ko MD bi moom ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. amul koy laaj tey lan mooy euh, LP wala li wala wala wala sous contrôle judiciaire te xamuñu ko. Mm-hmm. dégg nga. kon moom binaam mm-hmm. defu ko muy au dafa jël. leneen loo xam ne moo ko gën a ñor mu ciy xëy li ci gont. waaw sénégalais yi fekk ko ci bam saf sap. looloo tax taluñu bilan bi. Ah. parce que tey. waaw amul benn nit boo xam ne fii tey xamul Ciss du sekk nit ku siiw la. Mhm. pourtant sekk du bind. Mhm. amul Facebook. waaw du def du def interview. maanaam du dem fu ñu koy gisee moom. waaw du dem fu muy waxut ak nit ñi. mais pourtant mooy ki moo gën a siiw ministre yi Macky Sall yi. Mhm. Serigne Bassirou Gueye. waaw amul ñi ko gën a siiw Sénégal ci la bokk tey. ku na ay Maham Diallo. jamonoy Abdoulaye Wade boo laajoon Sénégalais yi kan mooy nekk doyen de six xamuñu ko sax. pourtant jamono ji boo nee maa xam Diallo ñu ne la ñëpp xam nañ ne mooy doyen des six. Mhm. ay premier cabinet kii moo fa nekk huitième cabinet Diop moo fa nekk fii cinquième cabinet maanaam loolu sénégalais yi ni ñu ko xamee. <laughs> waaw musuñu xamee noonu loolu. Euh. ak euh, maanaam appel en l'instruction. waaw sénégalais yi ni ko xamee. waaw xamee ko woon noonu. Mhm. Euh, ak acte de man mooy euh, akt mené pour comprimer état yooyu <laughs> Pape Sané gis naa ñu mu am ci comprimé yi nee naa ko Pape da jot na ci comprimé yi <laughs> acte nature comprimé état yooyu ñi séddale waaw ñëpp ko xam léegi waaw lan mooy garde à vue ñëpp mm-hmm. xam nañ ko mm-hmm. sénégalais yi léegi loolu maanaam place bi ñu ko xamee waaw lan moo leen ko xamloo mooy dafa ñor seen njiitum réew waaw mu dox ci mm-hmm. ñu xam loi xam sax ñu yor loi sénégalais ni muy xëyee soxla lu mu lekk parce que bu lekkut day am problème noonu lay xëyee soxla justice parce que dafa jàpp ne mën na ko andi problème mm-hmm. ni Macky Sall ex jëlee justice bi def leen ay star nga xam ne ñoom sëñ Basirou Guèye ñoom yaa xam Kayta ñoom mm-hmm. Sabassi Faye mm-hmm. dégg nga ñooñu ñooy star yi ñoom Abdou Karim Diop tey Abdou Karim ku siiw la Sénégal ay ay Ibrahima Ibrahima baaxum maanaam justice bi ñoo ñooy star yi ministres yi kenn xamu leen loolu président moo ko doxalee noonu mhm. léegi nag bi looloo amee da ngay gis sénégalais yi tamit dañoo dem mhm. bi ñu xamee ne problème ay juge lañ am rek dañoo wut ay nit ñooñu làqatu ñoom tamit. waaw tey Siré Clédor Ly. waaw waaw ngandum star la. <laughs> star maître Bamba Cissé. <laughs> tey bu defoon benn post Facebook taf taf da ngay gis Bamba Cissé fuf si Facebook. YouTube fépp ah, maanaam group WhatsApp yëpp da ngay gis Bamba Cissé a di nangam. waaw ñu def ko tiitre ci ci ci ci débat yi parce que ñooy star yi. Mm-hmm. ay ñoom eh, maître Etienne ay ñoom mm-hmm. Abdi Naar Ndiaye. waaw dégg nga. Mm. ay ñoom maître ay Tine. Mm. ñooñu ñooy. star maître Moussa ay maître Moussa Sarr ay ñoom mm-hmm. maître Babacar Ndiaye. waaw waaw ñooñu ñooy ñooy star Sénégal yi léegi parce que nit ñi ñoo leen gaaw créer ñoom tamit pour mm. laqatu ci ñoom. waaw. dégg nga ay ñoom maître si Ba. Mm-hmm. ñooñu ñooy ñi gën a siiw Sénégal tey. Mm-hmm. deuxièmement. waaw xoolal nit ñi nga xam ne dañuy faral di toog ak nit ñi di leen expliquer droit. waaw jëlal ku mel ne maître Ngagne Demba Touré. at la wax rek Sénégal gépp xam. xam ko waaw parce que day wax ci droit rek. droit lu leer. Mhm. Amadou Ba Pastef tey mhm. nit ñi gën a déglu. waaw xoolal. droit lay wax. Mhm. Pape Moussa saw xoolal ni mu ni mu taxawee. yaakaar nga ne Pape Ndiaye bu toogee daan ne maître euh, daan ne général Moussa Fall de ku baax la. mu jur coow Sénégal gépp waaw cela veut dire que Pape star la. waaw émission bi muy def. Mhm. dafa nekk émission bu ñëpp di xool Pam Ndiaye ci boppam day wax ci sur justice. waaw kon donc moom star la. waaw Thiamas jàpp nga ne bu ñëwoon ne Moussa Sa maître Moussa Fall ku baax la. sa général Moussa Fall ku baax la defe nga ne dana jur coow. non problème du am. yaakaar nga ne bu ko euh, kii mbay mi xaw ma daan euh, Pa Modou Mbaye xaw ma borom làmb ji. bu xëyoon daan ne maître Pape Aline Mbaye. waaw bu woon Moussa faal ku baax la. waaw est ce que danañ ko nit ñi danañ ko bàyyi xel. parce que ça veut dire que dafa. maanaam nekk star ci biir nguuru Macky Sall ba bu waxee benn wax wax boobu de impacté ci actualité Sénégal bi par force mhm. loolu la waaw boo jëlee ku mel ne Daouda Mine waaw ca TFM xool ko mhm. journaliste écrit la woon léegi ci nit ñi gën a seetaan waaw man mii du ma romb vidéo bu ma nee Daouda Mine rek ma daal di taxaw déglu waaw parce que li muy wax man daf may intéressé parce que ci nguur laa boo xam ne waaw lii bu ma ko xamul mu rey mu sonal ma mhm. loolu moo tax président sa billan bi maanaam loolu moo ko lekk moo tax nit ñi amuñu espace bu ñu ko waxtaanee soo ko seetloo. Mhm. <coughs> keroog damaa gis Fatou Abdou Ndiaye def benn affaire bu xaw a garaaw. muy laal boo xam ne am après bi président waxee laay doo ko bàyyi xel lool. Mhm. daf ne waaw xooloo ay nguuda mbub mhm. léegi ni ñu ñel ci Sénégal. waaw ñoom euh, kii paa bi. paa paa professeur Ndiak Fall. maanaam ñooñu la nit ñi wër léegi. waaw waaw keroog daf ne waaw bëggoon nañoo dalal ku bokk bennoo mais. gouvernement bi moom ñëpp a nga Fatick ca tournée économique bañ fay def. <laughs> waaw xam nga buñ am réew moom mu normal buñ ne ah gouvernement bi kat ñëpp a nga Fatick daa am lu ñu fay def. loolu moom moo war a nekk actualité. Mhm. mais daf ne aca kon léegi yow suba looy xaar cour suprême mooy première question ci émission bi <laughs> ñu tontu ba noppi mu ñu def tour plateau mu ne léegi lu ngeen di xaar CEDEAO waaw deuxième kii bi ñu dem ñu pare mu ne est-ce que bu bëgg a baaree Ousmane Sonko troisième question jeex na tournée économie bi man du débat du débat waaw <laughs> ñor na président ñor ñëpp ba ñoom ñëpp dem nañ waaye sax nit ñi lijjanti wuñ ko parce que moment bi ngay def tournée économie yaa ngi fi bàyyi benn projet boo xam ne uh-huh. loo gas fii lii ko d'accord loolooy tax président dox lu yàgg. Mhm. gis affaire bi doxut mu ne waaw lu tax waxu leen ci. Ah. fekk déedéet espace bu ci nit ñi waxee lañ amut. Mhm. ba pare tamit dañoo defaat beneen boo xam ne yàq énergie moom laa koy tudde man. muy ban xam nga Macky Sall toog na ak Amadou Ba nii. benn mhm. paa boo xam ne munu ma ne n'importe kii la parce que ku dem bañ woo woola ci kanamu président. en tant que conseil de des ministres. kooku am na loo xam ci état am na loo mën a wax luy jariñ état. ñu jox la ngay wax. waaw nga ne président boo demee neel Amadou Ba. Mhm. président ne la moo ne Amadou Ba ngi nii toog nga xam ne yow premier ministre depuis un an. Mhm. nit ñi xàmmewuñ ko. waaw est-ce que Sandiogou yaakaar nga ne place boobu bu fa Adji Sarr toogoon dend ak président dina ko wax ne ko waxal ma Adji saar <laughs> da koy xam. waaw parce que énergie bi ñu amoon au ñu def ko ci Amadou Ba dañ koo def ca Adji. aji dem tëdd ak moom nelaw <laughs> loolu ndax président bu ñu tëdd ak énergie bi nelaw léegi nag affaire bi <laughs> affaire bi ñoom dañuy gis ne léegi bi am na mooy ah. kii ñun niñ lépp mais xamuñu ko parce que kañ doon liggéeyal imaasam di ko conférence de presse léegi jeex na. Ah, jeex na wala moom la ñu waroon def candidat defuñu ko ko léegi candidat bi day am problème ah. léegi nag noonu la demee léegi nag lan moo tax président tamit garde à vue ak yooyu nekk problème mooy nit bu ñu la mayoon ak fetal. Mm-hmm. fetal gi waxuñu la lu ci xew lépp. waaw mën na laa rey. mën na laa rey. parce que xamoo ko. Mm-hmm. président dañ koo jox kaso yi. Mm-hmm. dañ koo jox mi ànd ak i te moom xamut kaso ndax mm-hmm. mosu caa dem. Mm-hmm. trente personnes yi ko gën a jege yépp kenn mm-hmm. mosu cee ñam garde à ñoom xamuñu luy kaso. waaw kaso nag ñu jàppee ko loo xam ne. comme fetal rek. xamoo fetal gi ngay fooyee rek di fooyee di fooyee mën na laa gaañ. man damaa gis ne nag président kasoo ko gaañ. Hmm? waaw mandat dépôt hmm. waxoon naa ko ko ca ba mu perte local ya. waaw ne ko mandat dépôt yee la ko perte loo. Hmm. waaye Ablaye Wade mi nga xam ne dafa ñam prison ay gaayam yu bari ñam. waaw Abdoulaye Wade léeg-léeg nit daana war a kii dañ ko war a mandat dépôt da koy jaral may ko cinquante millions. waaw sensé loo ko avis wala mënu ko génn réew mi bàyyee maag dëkk bi te ma continuer mhm. maanaam day jël daal place su mandat dépôt bi moom jaral na ko mu tegal la fa cinquante millions moo ko gënal mu mandat dépôt la. Mhm. Macky Sall nag moom day mandat dépôt di mandat dépôt ba nga naan moom est-ce sax ba yeeg nag yi duñ mujj ñu jàpp leen mandat dépôt. <laughs> waaw parce que mën ngaa émissionné yow. Mhm. nga xam ne danaan sëñ tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ waaw. amul benn débat bu ñuy wax ci Sénégal. waaw lu ñuy wax ci àdduna ba mu dugal ci moom ci sëñ Touba rek. Gabon maa yomba diw xasida ak lii. mais mhm. nga na mesere nguuru Macky Sall woo nañ ko dig. waaw ca Covid ba da nga koo fàtte wuy jën a dig. maanaam ku mën a woo nga na mesere dig ba. koo ba. loolooy seen problème mooy ñoom dañoo yaakaar ne mandat dépp ñoom réere gi ñu ko réere mhm. moo tax xamee xamuñu effet positif yi ak effet négatif yi. Mhm. ñoom dañ koo jël jàppe ne mbir la moo xam ne mën naa régler lu ne ndax ñoom jàpp nañ ne lii daal mhm. musiba la moo xam ne kuñ ko xëpp rek doy na sëkk fekk musiba la ki ñu ko teg mais musiba la ci ñoom ñi koy tegaate mhm. ci ñaar ñëpp voilà léegi nag président mën nga mën a comprendre mhm. Wade vingt cinq ans waaw la def waaw dafa opposé woog ab Senghor wekku opposé woog Abdou Diouf vingt ans tëjal nañ ko ñu bari d'accord waaye ci espace vingt cinq ans lañ ko tëjal ñu bari. Mhm. Macky Sall 2013 la tëj mi tàmbali ba mil 2023 muy dix ans. Mhm. nga tëj Karim ak képp ku ñor Karim. Mhm. dem na kaso. waaw nga tëj fi xalifa ak képp ku ñor Khalifa. dem na kaso tëj fi sunko ak képp ku ñor Sonko. ba noppi bëgg na léegi nañ wax ci bilan bi fan lañ koy waxee. waaw foofu la problème ne. man loolu laa ko wax ne ko. maanaam moom moo tax. ay PDCM yeeg. yooyu yëpp mënoon naa doon nag débat. Mhm. parce que nit ñi moom dañuy xëy toog rek di wër luñ débat. Mhm. waaye nag mënoo jàpp nit ñi tëj ba noppi. waaw ñu bàyyi fa nit ñi. Mhm. di waxtaan ci leneen lu dul nit ñi. man bu ma président daal bu amee lenn loo xamante ne maanaam moo yàq sa bilan. mooy tëj mi su ma sañoon nit. bu fekkee dangaa ngaa bëgg gaañi concentré wu ci kana yow. wax ci sa bilan bi. waaw tijjil ñi nga tëj ñëpp. bu ko defee sa bilan bi des fi ñu waxtaanee ko. bilan bi des fi ñu waxtaan waaw Cheikh Bara macha allah fi nga ko téye nag tey moom dafa nooy nepp ba tax na xam na temps bi moom xuus na mais nag fi nga ko fi nga tey moom joxe nga cours boo xam ni président defe naa ni lii moom bu ko dégloo dina kii waaw lii moom fi moom fi nga génn moom lii moom jàngat nga ko bu baax a baax toj nga ko tasar hmm. kon defe naa ni gars yi sax war nañoo mën a tontu président hmm. ne ko bilan bi mooy lii nga ne ajee nelaw ceeg añee <laughs> ah, nelaw ak ginnaaw bi waaw Cheikh Bara Cheikh Bara ñu nga parce que temps bi euh, daanaka jeex na de waaye ñu ñëw ci li nga xamante ni bii kon nañ def ñaari kii ne kii rek mooy Jomaay Fay waaw Basiiru Jomaay Fay ñu ñëw ci Basiiru Jomaay Fay léegi kon Basiiru waaw Basiiru Jomaay gis nañ ne mhm. euh, président Macky maanaam dafa taxawoon pour mhm. Pastef moom tas nañ ko mhm. léegi du ñu def euh, benn activité président Sonko nag def na ay mën-mënam ba. Mhm. lañ doon ragal. ci bu ñu joxoon Sonko fiis mhm. maanaam dal na leen parce que dañoo mujj animé waat nañ seen parti ñu ngi doxal comme si que ñoom ñu ngi ak fiis bi. Mhm. loolu nag maanaam li mu jur mooy dafa am lu am solo. mooy jàngale na ne nit ñi moom Sonko du dañ ko complexe wala dañ ko lii waaye moom. projet bi mu leen doon woo dégg nañ ko. parce que ci benn vingt quatre maanaam lu matul vingt quatre nga mën a tourner. Mhm. nit ñi ci beneen nit boo xam ne dafa yéen a bokk projet bi loolu. Mhm. dafa laajoon ay débat ak théorie yu bëree bëri gis nga Macky Sall bi ñu ko ne tànnal candidat rek def na taxaw na lu yàgg mënu ko. waaw parce que ñim àndal kenn ku nekk da nga am sa gis-gisu bopp ci biir mbir mi. ñii mhm. nag gis-gis bi benn la. benn gis-gis xalaat bi benn la. mooy doxal doxal mbir mi. waaw loolu lañ ciy jàngat. léegi Sonko tamit kan mooy Sonko mi nga xam ne moom mën naa jël. maanaam doole ji mu yor ak mm. riir mi mm. ak kattan gi nekk gi ko topp ah. mu jox ko nit mm-hmm. koo xam ne bokku leen ndey bokku leen bàyyi du sa doom du sa rak mm-hmm. donc te gis nañ fii ci Sénégal nit yi diine mm-hmm. mag ak rakk séq mbooloo mujj ah. ci fantasiro ku ne yóbbu dara gis nañ fi baay ak doom seq mbooloo fantasiroo ku ne yóbbu dara. Mm-hmm. kon donc boo mënee jël mbooloo wala doole. jox ko mm-hmm. koo xam ne du sa bàyyi du sa doom. Mm-hmm. donc kooku noonu ki def loolu. waaw maanaam ki jël mbool mën a jël dooleem. ak kattanam tëbb ko keneen pour kooku dem. te mën naa doon sax président de la république yilif la. ki def loolu moom bu la waxee ne la man. àdduna yitteelu ma war nga ko mën a gëm. waaw. parce que bu doon àddunaa ko yitteel moom danaan hii waaw sa waay mu ko joxee mu see yàgg yëf yi nag wala hmm. nangam wala est ce que bu doonee lim doon man dinaa doonaat la ma doonoon hmm. mais amu ci hmm. dafa am loolu moom la ca gannaaw moom war nañ koo xalaat te Macky Sall mësta naa ne ndox ne maanaam li Sonko doon bëgg na keneen doon ci réew mi loolu mooy mësu koo xalaat jàppoon na ne li Sonko doon Sonko bëggut keneen doon ko waaw léegi nag doon na lim doon noppi doon loo ko keneen waaw kon kooku ta partisan la rek. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. loolu nag maanaam lu mat a jàngat la mooy nit ñi topp Sonko moom juumuñ ci sonk mooy jàpp sonk moom àdduna ñoru ko politique ñoru ko falu ñoru ko. Mm-hmm. waaye liggéeyal réew mi ñor na ko. ba bu dul moom it di keneen. dégg nga loolu moom lu leer la. Basiiru mi ñu dénkit. waaw nañ ko waaye nag jàpp naa ne ko wóor la ndax man man de Basiiru maa ngi ko jàpp ci Ousmane sonk moo ma wax ne ma. Basiiru mii laa gën a wóolu ci àdduna. yàgg na boobu ma ko waxee. kon jàpp naa ne Sonko ak ni mu wóoree ko mu wóolu wóor nga. waaw waaw. gis naa nag waa APR moom benn problème lañ am mooy topp nañ Sonko di ko topp di ko topp di ko topp ba yaakaaroon ne yëfi Sonko la ndax ni mu tudd Sonko la wala daa sant Diallo wala daa dëkk Casamance. waaw wut nañ ko tudd Son Ousmane santut Sonko dëkkut Casamance. Mhm. waaye xëyati nañ maanaam tuuma ya newoon ci kaw Sonko ñu teg ko ko naan salafiste laag <laughs> nangam nangam waaye loolu lépp garaawut. Euh. man Basiiru moom man xam naa ko dem naa këram. Mhm. damay wax ne maak Omar Gueye mi ñoo ànd nañ këram. bu yàggut mhm. dem naan fa café ngoon rek. Mhm. boo duggee biir këram balaa ngaa toog. di nga xam ne Basiiru moom kii mooy sëriñam. waaw xaw ma ko demut këram nag. waaw loolu waaye amul problème Cheikh Omar Anne nee na Basiiru ab salafiste la. alhamdulilah ndax ñun Basiiru kon xam nañ lu mu doon. waaye laaj naa ko moom candidat bi lu mu. candidat kan Amadou Ba. lung waaw ma maanaam moom moom man ñeex a koy ñeex moom. man ñeex a koy ñeex. waaw moom waaw. altax ah, nga murit laam xaadir laam layen laam tiijaan laam salafiste laam lumu. lumu waaw. ku mën a wax nag candidat jàmbur ne lii la. ngir yàlla nag war nañoo mën a wax sa lan la. waaw man boobu tont rek laa ko ciy tont mm-hmm. ndax madu moom. kenn xamut lumu. ah man de xaw ma ko. xamoo lumu sama nit a de waaye xaw ma lumu de. Mm-hmm. musuma dugg këram ba gis fa fatub sëriñ mosuma koo dégg ko sëriñ bu bu xam ne dañ naan kii mooy kilifaam moom. Hmm. te nag nekam dañoo dugg ci mbirum sëriñ it ci wax. waaw Baye Karim de ba mu fa ñëwee na ma ko dalalee. waaw ah ku ku ku miin sëriñ si doo def noonu de doomi sëñ Fallu Baye Karim. Hmm. di ñëw sa kër nga bàyyi ko mu jiitu la ca saal ba toog di la nekk. Hmm. loolu moom ab taalibe du doxale noonu. wala ko xamuk cëriñ du doxale noonu ndax xam naa ne bu ñu ko newoon ambassadeur diw. moo lay seet. dana xaar ci buntu ba moo koy ubbil buntu otoom. Hmm. bu ñu ko ne woon maanaam ministre nangam wala dara wala ministre nee ngi ñëw. Hmm. du ne ko demal saal ba néeg ma. Hmm. la fait que rek ak ba sëñ ba toogee nam ñëwee nam ko nuyoo ñun dañuy xool. waaw ñun moom dañoo mokkal murit Mhm. dañuy xool xam nañ ni kii moom xamut luy ak cëriñ moom nam nuyoo sëñ ba ne ko nu mbaddaak yooyu noonu mu ko doxalee mhm. <laughs> <laughs> maanaam da xam ne waa ji moom maanaam ak cëriñ moom nee jaar mu jaar nee waaye yooyu yëpp ñun mhm. doon nañ ko gis te waxuñ ci ndax yooyu dafa sew dégg doon nañ ko gis te waxuñ ci ndax dafa sew waaye yow nga bëgg ñëw ñu bàyyi fa yooyu yëpp nga ñëw naan ñu léegi yéen sa suñ suñ candidat bi moom en matière de bu moom normal na waaye seen bos normalu léegi man laaj naa leen waa pas sa pose un question tous euh, les Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba c'est bu marabout bu marabout des Sénégal <laughs> Cheikh Bara li ngay def nii mën nga fay wax nag ba too ba ba tooñ fii ci sa làkk tubaab Cheikh Bara Cheikh allah Cheikh ñëwal ci programme bi ndaw sax may xool di ma regeju waaw léegi ñëwal ñu ci programme bi at bi mais bi lay ñëw Cheikh Bara ñëwal ci programme man kañ tey waxuma waaw waaw kon waaw léegi waaw Basirou daal moom cent onze mooy mooy numéro waaw ci fiise parrainage bi. waaw Amadou moom géntoon naa nag. waaw géntoon naa nag Amadou Ba Pastef yanu Macky Sall dóor ci suuf. Hmm. Amadou Ba Pastef nag mooy mandataire Diomaye. Hmm. cent onzième sóoraat ci alxuraan it mooy tabbat. tabbat yadaa abi lahab mooy bi yàlla naan Mouhamed danaa dóoral sa noon yi teq leen ñu daan. waaw. tabbat yadaa waaw tabbat nag de sóoratu tabbat la yor de. tabbat la yor Macky Sall bàyyi ci xel. waaw. tabat ci lay yàlla di wax abu lahab ak abu lahab mm. tëcc waaw moom mm. mm. mi ngoog kon macha allah dégg nga mm-hmm. ñëwal ci léegi nag programme bi kon mooy waaw ajjuma suba ñi ngi asalem de ñi ngi ñi ngi tëngeej si te sëñ Mansour terminus su képp koo xam ne da ngaa soxla ci mbirum sangatu ca ngaa yal njare ca ngaa ubbiku ca yu bayre di tax boroom kër am liggéey yu doxal say mbir daal sangat yaram neex ngay am ubbiku loo def mu baax mm-hmm. suba boo ñëwee tëngéej insha allahu taala danañ ko def foofa mm-hmm. sang uh, faju hémorroïde biir buy jooy mm-hmm. booy dem toilette ngelaw rek di génn awra wuy dellu wa wàllu ngóor ak wàññi kàttan xeet googu ak uh, estomac géex ak lu mel ne jabet tension faju daal faj yaram boo ko ñëwee foofu itam danañ la ko fajal samedi ak dimanche tamit ñi ngi tëngéej si sañ sëñ Mansoor ci terminus 48 bi boo di kër Pape Coppet lundi mooy journée bi ñuy faj mbirum rab soo wootee da ngay wax damaa bëgg faju rab danañ la seetal fajal la rab yi ci benn fan incha allahu rabbi mm. mardi ak mercredi ak jeudi ñu ngi asalem deux ginnaaw école ma jege sàll mm-hmm. waaw euh, noonu la demee léegi li ñuy faj fii yëpp am ah. na mbuur Mhm. ca gannaaw osan ba mhm. aboo taal moo fa nekk numéro baa ngi noonu am na Touba mhm. ca wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir sama rakk ju góor ju ñuy wax sëriñ Abdou Khadir Ndiaye jiili Ndiaye moo fa nekk ku ko woo tamit te wàllu ci wàllu faju meeg cangat yeeg yëpp da ko am am na Thiès ku ñuy wax Assane cees moo fa nekk ca wetu kër Mbay Juuf moo kër Mbay Juuf ñoo jàkkaarloo ko fa dem da nga am ci garab yi am na Casamance tamit ku faw dem moom itam bu soobee suñu borom da nga jot ci garab yi. incha allah loolu mooy programme bi di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñuy fàttali numéro téléphone bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoog baay mbay mu wuyu leen téléphone ne leen ngeen daal di bind seen parrainage waaye moom 111 ba. moom la Baye mbay yor day pare ne ba noppi ne waaja ñëwal géew def ci poos ba moo tax mu joxe addiya moo tax mu jox la addiya Baye Mbaye yàgg na fay ñëw mosulaa jox addiya tey bu la joxee addiya ñu gis ay vidéo yuy wëndeelu ñu ko muy encaissé comme bi jël yére. Eh, eh. jox ah, Baye Mbaye. Baye Mbaye eh, daal en tout cas ay mbiram doy na waar ay mbiram doy na waar <laughs> bi. damay ragal mu jekki-jekki dem pare ni ji ñëw indi soxna naan dañ ma ko may soxna lii ci parrainage bala mën na koo def lu leer laa la Baye bay mi bu yeboo na ko jabar yi woo na ko jabar ji woo wax ak moom non li Assane di wax ci Baye Mbaye dama ko commencé gis non dama ko gis Assane daf preuve la ma envoyé preuve la ma envoyé Baye Mbaye pare ba noppi ndaw sa jox ko xaalis te gis naa ah, waxi Assane kat léegi daa ànd ak vidéo <laughs> Mbadou. macha allah léegi yaa ngi merci beaucoup El Hadj euh, Sanjogu Mbengue defuma la signe ngala jiw ma la néew ma la waxtu wi jeex na na leer may naa leen 3 minutes xaw ma 4 minutes voilà. non non maa leen bàyyi ñu wax ba jeex rek waaw waaw may naa leen ñetti minutes yu nu bokk yu nu moomul ay ca mi ngi noonu ñu jaajëfal leen bu baax a baax moom Cheikh baare Ndiaye borom ma def gis di nuyu soxna Katek njaboot ga waaye nuyu également mbay Mbaye ak ñoom sëñ naa ñi ngeen àndal ñëpp rek ñu ngi leen di euh, remercier bu baax ay ca ñu dem ànd ak partenaires yi dem